ñu dellu si waat euh, donc yéen seen ñaareelu pàcc bu émission matin bonheur comme ni ma leen ko doon waxee tout à l'heure ki ñu fi dalal tey membre fondateur bu H24 Macky Mouhamadou Rassoul Diouf ñu ngi lay nuyu di la dalal ci topp merci beaucoup Astou Dione ci invitation bi ñu ngi lay nuyu aussi di la di remercier di liggéey bu rafet bi ngeen nekk di def yi mhm. euh, lan la exactement euh, merci beaucoup Astou Dione comme je l'ai dit H24 benn plateforme digitale ak benn force de proposition boo xam ne la ay cadre coalition ak grande majorité présidentielle ñoo ko taxaw li ñu ci jublu moom mooy indi suñu taxawaay ak suñu yokkute ci li nga xam ne moom communication bu gouvernement bi ak état du Sénégal dans le cadre général parce que dañu seetlu ne dafa am avancement yu bari yoo xam ne ak projet yu ba xam ne nguur gi da koy liggéey mais malheureusement li ci war en terme de communication pour ndaw ñi jot ci ak les acteurs yi nga xam ne ñoom lañ koy defal pour ñu jot ci dafay jafe. Mm. parce que yenn canaux yi nga xam ne moom la ñuy faral di utiliser dafa deme ne ba communication institutionnelle parfois pour mu day jafe nous on di dit que c'est un devoir en tant que membre de la grande coalition présidentielle nekk ay jeunes jeunes Benno Bokk Yaakaar ak Alliance pour la République depuis le début que ñu benn plateforme boo xam ne daf ñuy permettre ñuy mun di leeral gale yi li nga xam ne véritablement moom la njiitu réew mi ak gouvernement am di di loolu moom moo waral ñu ñu taxawal plateforme bi ñuy woowee H24 Macky mais gis nañ fii euh, li nga xam ne moo di task force gis nañ fii beneen plateforme bi nga xamante ni moo yor digital bi di GIR euh, suma juumul euh, donc loolee lépp ngeen ñëw tey créé waat beneen plateforme su su sous prétexte wala boog di parce que communication xëy na dafa des dafa am défaillance et tout est-ce que loolu du wane ni yële seen efficacité quand même moo moo des rek ba gisuñu li nga xamante ni moom la njiitum réew mi di def non non gisee wuñu ko noonu xam nga communication dafa yaatu te dafa nekk mbir boo xam ne malheureusement du doy parce que lépp looy def au jour le jour wax ko nit ñi pour ñu xam ko yaakaar naa ne véritablement mbir bu mbir bu am solo moom moo tax jur wàll ci wàll bu mu nekk mu ngi def liggéey bu am solo boo xanaa ko de la même manière task force bi ko def ak yeneen peut-être institut yoo xam ne ñu ngi alliance de la pour la république mais teewul ñu ñu jàpp ne c'est un devoir en tant que des cadres grande majorité présidentielle ñu dugal aussi suñu loxo ci li nga xam ne moom mooy communication bi comme je dis vite du ñàkk matu ñeneen ñi mais dañ jàppar na rek communication dafa loo xam ne lu am solo la aujourd'hui ci lépp loo xam ne gouvernement da koy def wala wala institution wala liggéeyukaay loolu moom moo tax tey taxawal li nga xam ne véritablement moom mooy H24. mais na ngeen gisee souvent euh, communication euh, njiitum réew mi nga xam ne euh, la plupart du temps ay ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum communication dañ koy ŋàññi lu ci mel ni anam bi nga xamante ni moom communiquer ak sénégalais le plus souvent. c'est sur les réseaux sociaux de deux yenn c'est-à-dire yenn posture yi nga xamante ni ñu ngi koy jël ak yenn mooy comme par exemple euh, l'arrivée des vaccins dégg nañ ni mu waxee que ni euh, ku bu ñu utiliwul vaccin yi donc ñu daal di koy jox yenn pays yi nga xam ne dañ ko soxla cest à yéen ñi nga xam ne aujourd'hui yéen ñëw soobu waat bokk ci ñi nga xamante ni ñooy gën a yàq communication njiitum réew mi naka ngeen di jàngatee souvent yooyu les Euh, de de de gisin yi nga xamante ni ñenn ñi ñu ngi koy gis communication bu njiitum réew mi. à travers H24 on trouve que le président de la République n'a pas de problème de communication dafa di par l'homme sénégalais si malheureusement moom bëggul ku koy tenir langage de vérité. mais comme li ci wàllu vaccin yi aujourd'hui on a vu heureusement pour ñëpp que ne cela a été ses fruits parce que bi wax ne sénégalais yi bu ñu utiliser wul vaccin yi ñu jël ko jox ko réew yi ko soxla seetlu nañ ne ba troisième vague bi duggee ba léegi dafa am un nouveau regain nit ñi ñu ngi dem takku ji véritablement ils sont maintenant conscients de li nga xam ne moom mooy représenté wu vaccin ci ci ci xeexu ci xeexu mbas bi donc pour ñun gisuñu ci defin maintenant comme on di communication moo dul doy surtout ñun à notre niveau dañoo tombé génération boo xam ne aujourd'hui les jeunes son plutôt Instagram ils sont plutôt Twitter ils sont plutôt Facebook ñu ci bëri amatuñu jot seetaan média global yi nga xam ne moom télévision ak rajo yi moom moo tax ñun ñu jàpp ne am na wàll woo xam ne mun nañ ko fa liggéey parce que on la même génération que tous ces jeunes aujourd'hui qui gravitent autour de de ces différentes plateformes différentes plateformes de réseaux sociaux moo tax ñu jàpp ne ñun war nañ cee indi suñu taxawaay ak suñu liggéey globalement jàpp nañ ne le président de la république ak ñi ko wër kàngam yi ko wër ci communication ñu ngi def liggéey bu am solo ci niñ ko war a defee ci wàllu institution li ci des rek kenn ku nekk fi nga nekkee ci fi nga fa li nga ci war a jàpp pour leeral nit ñi li moom la état bi ak li gouvernement bi di def nga nga nga nga def ko. est à dire que am ñu war a parfaire c'est à dire ci ay euh, yenn ci ay façon de communiquer woom ne amul benn gisoo ci benn défaut mais foofu donc dañu mën a jàpp ne am loo xamante ni war nañ ko parfaire xoolaat ko seetantal ko ci anam bi nga xamante ni mi ngi ko c'est souvent euh, euh, la la nation. non xam nga toute œuvre humaine est imparfaite nit moom lépp lu muy def rek yàlla rek suñu borom moom la mbiram yëpp. tegu ci yoon donc nit tous les jours que ngay yeew da war di parfaire xam ne moom ngay doxee ak ni ngay ni mais ñun jàpp nañ la chef de l'État le président de la République comme on dit dans sa communication de tous les jours il tient langage aux, aux populations sénégalaises maintenant malheureusement y a pour certains ñoom na leen gënal loolu am na ñoo xam ne peut-être nga nax nit ñi wala nga jéem a wiiri wiiri moom moo leen gënal mais lui fait pour à chaque fois donner la bonne information à la population donc ñun jàpp

coppite yi nga xam ne ñun moom moo ñu yëkkati rek moom mooy comme je dis li nga xam moom gouvernement bi di def ci lu baax ñu wax ko ñi nga xam ne dañoo nekk de ay kër nga xam ne tout le temps ils essaient d'amener de de mo fausse information et autres lépp lu ñu lu dul dëgg ñun ñu rétablir vérité bi et puis li nga xam ne moom mooy sooxe parfois ci lii parce que comme je dis œuvre humaine matul ñun aussi ñu ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo war leen boo xam leen kat ah, fii am na lu ngeen fi waroon def yokku leen doxaleeg yooyu loolu moom mooy bi nga xam ne ma ki bu leneen ci ci ci li motiver seen taxawaay est-ce que aussi euh, senti woo am euh, le pouvoir est euh, trop attaqué surtout sur les réseaux sociaux dañuy seetlu souvent genre mbir yu demee noonu que ni y a beaucoup d'attaques yoo xamante ni ñu ngi koy subir ba gis nañ njiitum réew mi génn na def benn sortie ci benn conférence pense euh, en benn meeting boo xamante ni amoon na ba mu ne dina jël ay mesures yoo xamante ni képp kuy kàcc ka réew mi dinañ la jéem a euh, en tout cas xoolaat li nga xamante ni moom mooy genre mbir moom noonu la ko waxee ko est-ce que foofu nekku ni dañu sentir en tout cas le pouvoir très attaqué sur les réseaux yéen ngeen ñëw constitué wu constitué wu euh, en bouclier en tout cas comme on dit H24 Macky au-delà du fait que mu nekk force de propos ça va ça représente aussi bouclier pour le chef de l'État parce que nag nit bu ne fulla ak fayda bëgg a yàq yow lu baax li nga yor nga am fulla ak fayda gu ko raw pour yow nga sàmm loolu ñun jàpp nañ ne le président de la République comme on dit il n'en veut pas à ce qui def ka ci comme comme on dit mais dafay wax ne ñi nga xam ne dañuy utiliser réseaux sociaux yi pour lu ñaaw parce que seetlu nañ ne aujourd'hui on est arrivé à un stade boo xam ne violence verbale bi bëri ci réseaux sociaux yi malheureusement saaga bi bëri xaste bi bëri xaxarante bi bëri te bi bëri man je trouve que ci angle boobu lay waxee ne on va prendre des dispositions pour essayer de réguler l'utilisation de ces différents réseaux sociaux mais véritablement boo dominaawee ci réseaux sociaux yi dina xaw a jaaxal nit ñi parce que yow liggéey moom moo la war xam nga ki da nga war a xëy di liggéey di jéem a def lu développé aujourd'hui réew mi mu ngi mel ni comme yow aujourd'hui t'as pas le temps des réseaux sociaux heureusement peut-être boo wàccee di am sa pierre à l'édifice boo xam ne mun nga ko cee dugal du coup on comprend parfois que ñenn ñi opposants yi nga xam ne amuñu lu ñu def jéemuñu aseloo réew mi aussi ñoom ñëpp ñu taxawaay ci réseaux sociaux liggéey moo amul yow xam nga li nga wax noonu day que ni loolu c'est c'est un peu bu ñu xool day mel ni benn genre lu ndeel la benn benn taux de chômage c'est-à-dire mën nañ ko natt foofu que ni tene ñi nga xamante ni tout le temps ils passent leur temps sur les réseaux sociaux du du noonu laa koy gisee mais ni nga ko waxee day mel ni da nga naan ñuy yàgg ci réseaux sociaux yi tout le temps ñu leen amuñu lu ñu def. xam nga xam nga loolu loolu man pour man du baromètre xam ndax taux de chômage bi bari na wala bariwul Sénégal parce que comme je dis man bi ma ñëwee fii déjà ay ndaw fekk ñoom ñëpp dañoo xëy liggéey si daan si seen doole de la même manière que yow noonu ngay def man su ma jógee fii dem sama bërëbu liggéeyukaay ak ñeneen ak ñeneen sénégalais maintenant dafa di réseaux sociaux tu vois une seule personne mu am deux trois quatre cinq cotif yoo xam ne da koy utiliser di wax wax yu ñaaw donc pour man loolu du baromètre comme je dis dafa am na xam nga nit bu jógee pour yàq moom soxna si dafa dafa dafa naqaree gérer lim koy jaral pour mu def ko yow du la ko jaral yow mi nga xam ne dañ la fal pour nga liggéey le président il le dit ku ñu fal pour mu liggéey mënoo tout le temps ngay gestu di tontu loolu rek moom moo war a nit ñi di jàpp ne sur les réseaux sociaux on est faible mais comme je dis yàlla def na heureuse réseaux sociaux Facebook WhatsApp c'est pas loolu du baromètre baromètre aujourd'hui c'est les urnes bu élect jotee on se rappelle de ces propos euh, mm les propos du chef de l'État on se en mhm. wax que ni le pouvoir du clic di di ñu définir un peu euh, pouvoir du clic ak li nga xamante ni moom moo di avènement aux réseaux sociaux yi mën a jouer euh, ci euh, li nga xamante ni moom moo di démocratie mhm. je pense que loolu kàddu njiitu réew mi ki nga xam ni d'alors il était opposant tey moom moo toog kon moom mënul kam euh, nekk koo xamante ni dafay neenal Euh, pouvoir réseaux sociaux. non le président de la république ak gouvernement la moom neewaluñu pouvoir réseaux sociaux parce que comme je dis moom day utiliser canaux yu mel ni Twitter ak ak Facebook contrairement ak je suis je suis d'accord sur le principe je dis juste que ne par rapport ak emploi des jeunes bi nga wax a de chômage bi ma ne la du baromètre pour xam fan la ci toll maintenant moom mu neenal parce que c'est des canaux yoo xam ne moom aussi da koy utiliser ñu gis ne instruction yu bari tey dañ utiliser parce que comme je dis communication fa la toll mais ban utilisation sociaux yi moom moo am solo moom mooy quand on utilise les réseaux sociaux que nga bokk opposition pour la société civile pour di nekk force de proposition parce que il t'arrive de voir sur les réseaux des un plus-value ci débat public bi nga xam ne moom la am foofu la ñuy xaar nañ bu ñu utiliser réseaux sociaux yi à ces fins là véritablement da ngay gis ne lu njëriñ lay doon mais malheureusement dafa am ñoo xam ne dañ ciy profité depuis quelques années loo xam ne muy yow muy man muy keneen moo ko seetlu di saaga nit ñi di leen xam menacé muy mbir yoo xam ne dañu koy ñaawlu et maintenant euh, est-ce que yaakaar nga ni boo xoolee li nga xam ni mooy xew ci ci réseaux sociaux yi tendance bi nga xam ni mooy am son euh, te tout à l'heure yaa koy wax am ngeen benn prévalence boo xamante ni assez faible sur les réseaux sociaux loolu mën ngeen ko natt si li nga xamante ni moo xew en réalité c'est-à-dire vous êtes faible sur les réseaux sociaux euh, donc c'est actuel c'est vraiment ce qui se passe en réalité non du tout moom laa la wax sànq ci samay benn wax la réseaux sociaux du baromètre moi je te donne un exemple simple aujourd'hui le yeah, même constat non xaaral may ma tuuti ma ñëw le même constat bi am tey aujourd'hui en même constat bi sinon pire moo en 2019 je te dis en bi ñuy dem élection y a des gens qui te faisaient croire que ne ñàkk ngeen nguur gi di wax xam nga di xaxar gëm ko mais bi ñu demee sur le terrain tu vois que la réalité il est autre parce que Sénégal moom li ko ñor nekkul ci réseaux sociaux moom mooy dans son vécu de tous les jours lan la ci nguur gi pour améliorer condition de vie am te véritablement gouvernement Sénégal bi ñu ñëwee ba léegi ak président de la République tous les jours que jëfee mu ngi jug di liggéey pour lu jëmale kanam askan bi ak ñi nga xam ne ko seq mm. mais aujourd'hui bés bu jëlee ay restrictions Euh, def parce que je pense que lii nii du Sénégal rek la xew hmm. li nga xam ni mooy xew ci réseaux yi parce que xam nañ ne réseaux sociaux yi lépp lu mu impliqué ci ay dérives et ça se passe pas seulement au Sénégal est-ce que yaakaaroon ni restriction bu jogee di euh, dal ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy utilisateurs yi nekkul benn recul démocratique boo xam ni ça peut aussi impacté Euh, ci li nga xam ni moom mooy échéance wala boog am sanction négative boo xamante ni euh, sénégalais yi dinañ ko euh, def par rapport ak yenn échéance yi nga xamante ni ñu ngi si jëm. non man yaakaaruma loolu parce que comme je dis. il s'agit pas de restriction. il s'agit de réguler parce que quand on de moom mooy li nga xam ne moom moo baaxul ci réseaux sociaux parce que ñun ñëpp nangu nañ ne même tubaab yi nga xam ne ñoom ngay internet ak réseaux sociaux am na ay avantages am am ay inconvénients ci inconvénient yi la état du Sénégal ak président de la république wax ne dinañ ci jël ay mesures te loolu nga xam ne moom mooy am ci réseaux sociaux yi muy lu ñaaw ñu ñu wàññi ko yow li may wax yow yaa gën a xam aujourd'hui sur les réseaux sociaux y a des gens qui utilisent plusieurs comptes fixes tous les jours di saaga ay baayu jàmbur di saaga ay yaay jàmbur mais loolu rafetul état bi amee possibilité aujourd'hui mun a fexe ba loolu mu mun a dañ mais loolu ça y va de de l'engagement de tout le monde mënuñu ko féetalee euh, mënuñu comprendre par la wala opposition parce que ku ci nekk am nga possibilité créer sous le nom de quelqu'un boo xamante ni bokkoo ak moom appartenance donc dans ce cas dañuy gis pouvoir bi di ko jiñ opposition bi opposition également euh, di ko jiñ pouvoir bi mais foofu est-ce que mun nañ xam réellement ñan ñooy def loolu mën nañ ni waa APR ñoom ñooy làkkatu derrière les faux profils en tout e tout ñun les principales victimes moi qui te dis victime xaw ma ndax yow tu as été victime tes collègues journalistes yu ci bëri nekk nañ fi ay victimes insultes ak des menaces de mort donc li ñuy wax c'est des choses qui sont réelles et sérieuses mais boor bu mu munti jógee que muy du pouvoir que muy de l'opposition ou de la société civile si le gouvernement peut prendre des mesures pour fexe ba yu ñaaw teef yooyu nga xam ne moom mooy am ci réseaux sociaux yi bañ a am mais nous on applaudit de demain loolu rek utiliser pour lu jëmale askan wi kanam pour ñu ciy wax ay waxtaan ak ay sujets yoo xam ne yu a avantage ñi ñiy liggéey la parce que c'est c'est à ça aussi que yow boo faree opposition wala nga faree société civile wala nga faree pouvoir aussi bu réew mi doxee ñëppal donc bu ñu mënee fexe réseau sociaux yi ñoo am ci usage boo xam ne aujourd'hui dafay permettre nit ñi ñu ci am ay waxtaan yu jëmale réew mi kanam mais man on applaudit de deux mains e et maintenant ñan ñan ñoo composé seen plateforme boobu euh, en réalité si nekk yan genre profil euh, que que vous des des politiciens wala femmes yoo xamante ne sont professionnels de la communication euh, y que des politiciens comme on dit comme xam nga politique du métier kenn ku nekk da ngaa am sa sa profession nekk si y a des médecins dans H24 y a des économistes y a des logisticiens y' a y' a pas mal de profils mais li ma mën a wax en des termes clairs moom mooy aujourd'hui H24 s'est positionné comme une structure qui regorge que de cadres ça c'est un choix qu'on a fait et quand je parle de cadres c'est les deux jeunes cadres comme cadres mooy des gens yoo xam ne aujourd'hui dans l'administration sénégalaise ñoom ñëpp c'est des gens qui tiennent des postes de responsabilité ñu xam li nga xam ne tant soit peu bokk na ci gestion état nan lay doxee ñu décider regrouper wu parce que nekkul waa APR rek ñoo fa ne y aussi des chef de parti y a des membres de la grande majorité présidentielle yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci biir H24 boo xoolee aujourd'hui en un laps de temps parce que bi ñu ko créé léegi un mois lay def mais di nga seetlu ne sur le paysage médiatique H24 mu ngi envoyé élément un peu partout comme ni ko yeneen plateforme yi di defee pour waxtaan ak sénégalais yi wax leen véritablement li nga xam ne moom la moom la nguur gi di def. Mhm. aujourd'hui euh, li nga xam ne moo nekk euh, en tout cas l'actualité ñu ñëpp xam ne moo jiitu ci ci lépp ñu wax ba pare te te ba contourner ko muy euh, mbas mi gis nañ ne ñu ngi ci troisième vague ñu ngi wax waxum variant delta ak lépp li nga xam ne indi na ko ci ay jëyee gis nañ nombre de morts yi nga xam ne ñu ngi koy causé chaque jour à travers information yi ñu ministère di jot. loolu ñu gis ci leneen lu xew ci biir mooy coow yi nga xamante ni ñu ngi koy dégg que mu nekk ci gestion bi walla mu nekk ci wàllum compagne de vaccination bi et tout ban jàngat nga ci def loolu nga xamante ni moom moo xew au sein de cette euh, lors de cette de cette troisième vague là. bon fi may commencer d'abord moom mooy véritablement wu jaale ñi nga xam ne yëpp ñoom ñoo ci ñàkk seeni mbokk ak seeni ak seeni seen seeni parent parce que véritablement même benn nit bu gaañoo ci benn mbir bakkan dafa fort. maintenant li ñu mën a wax ci affaire Covid 19 bi comme tu dis mooy troisième vague bi mooy mbir boo xam ne la aujourd'hui boo xoolee adduna bi yëpp la laal Maroc démb u barki démb jël nañ ay mesures restrictives ba dem ci confinement anti def nañ ko y a beaucoup pays au monde yoo xam ne tey aujourd'hui recrudescence su troisième vague bi dafa yegg foo xam ne ni tey jéggi na dayo Sénégal bi mu fi duggaatee. mooy variant delta bi le gouvernement du Sénégal par le biais de son président ak du ministère de la santé mu ngi ci jël ay jéego pour li nga xam ne moom mooy deveniru sénégalais yi ak lu jëm ci seen kaaraange ñu ñu ñu doxalee ko ba mu baax ba nga xam ne véritablement dinañ solutionner problème bi. Hmm. et noo gisee gestion bi parce que euh, ŋàññi nañ ko bu baax a baax anam bi nga xamante ni moom la ñu gérer Covid bi li ñu jot a génnee ci première vague bi ces 1000 milliards la nga xam ni ba jamono ji mënuñu ci amagum loo xamante ni lu clair la et tout bu ñu jógee ci loolu dégg nañ fi tout récemment coow matériel yi nga xamante ni moom moo féetee euh, société yooyu te ñu ne euh, docteur Niang dinañ koy jaay au niveau des privés et tout. coow yooyu juddu ci pandémie bi euh, bëggoon nañ ci am quand même seen seen gis-gis seen position par xam na ñun position bi ñu ci am c'est c'est assez clair nous on veut parler de chiffres qui sont réels et véritables yoo xam ne li may wax ni sénégalais yëpp ñoom ñoo ko gis en mars 2020 bi Covid 19 di dugg ci Sénégal on n'avait que 12 lits de réanimation à l'hôpital Fann deux mois après en juin 2020 le président de la République avait pris des mesures ba ñu am plus de 450 lits dans les différents clin hôpitaux de Dakar yi nga xam ne fi lañ doon traité malade yi ñu defaat un nouveau benn investissement bu bees wutaat 450 lits pour les nouvelles hôpitaux de Sédhiou bu Kaffrine ak bu Kédougou boo demee tey hôpital bi des enfants bi nekk Diamniadio y a plus de 100 lits yu fa nekk donc aujourd'hui ce qui est clair et constant mooy le gouvernement du Sénégal a injecté beaucoup d'argent ci riposte Covid 19 bi moom moo tax day résultat yi ñu am ñu am ko je te donne un exemple simple bi ñuy démarrer on parlait de respirateurs aujourd'hui le Sénégal a plus de 170 respirateurs yu ñu jënd ba am 65 yoo xam ne ñu ngi ko def dans les stocks en termes de vaccin on a plus de 1 million 700 de doses de vaccin yoo xam ne dugg si na fi moom moo permettre aujourd'hui ñuy wax que ne ñu ngi waaj yegg vers le million de Sénégalais de vacciner te ñu jàpp ne vaccination bi moom mooy la seule solution qui va permettre d'atteindre l'immunité collective bi mun a aar askan wi yëpp ci li nga xam ne moom mooy jàngoro bi maintenant comme on dans toute gestion am atteindre guñu sax xaaju li nga xamante ni moom moo di objectif bi parce que euh, xam nañ li nga xamante ni moom mooy moom moo fi dugg ak li ñu soxla je pense que euh, foofu moom euh, vaccin bi des na lu bëree bëri lu ñu war a ay avancées yu ñu war def à ah, ah, attention des na ay avancées comme di dit mais Sénégal jéego yu mu def

vaccin yi dafa am njëriñ et la seule solution aujourd'hui pour arrêter li nga xam ne moom mooy propagation virus bi bëgg nañ ko mais ñi ko defar ñoo ñu ko gën a soxla maintenant pour pallier à tout ça moom moo tax le présent a pris pour ñu dem ci ci production ak fabrication ay vaccin mais en attendant d'y arriver véritablement Sénégal dox na ci ay jéego yu mag Sénégal ci sous-région bi il fait partie des premiers pays africains yi fi njëkk am vaccin je rappelle que ñun ñoo ko doté woon en vaccin ci li ñu njëkkoon jot ci dose Sinopharm de même que la Guinée-Bissau donc sur ce point là l' état est en train de faire un travail extraordinaire ñuy profito d' ailleurs ci ci ci ci occasion bi di féliciter le ministre de la santé ak tous les acteurs de la santé ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def di profiter aussi di féliciter population bi ci regin de confiance bi nga xam ne am na ko parce que c' était pas évident on se rappelle ici que au début de la campagne de vaccination des syndicalistes des hommes politiques se sont levés pour dénigrer li nga xam ne moom mooy vaccin yi heureusement que aujourd'hui ils ont mis de l'eau dans leur vin yedd seen bopp xam ne feebar bi du caaxaan parce que bu la jàppee wala mu jàpp ku la jege ngay xam ne lii du caaxaan te bu boobaa da ngay pare pour jéem a wut solution donc comme je dis gis nañ ne état du Sénégal def na ci ay jéego yu ama am solo je te dis entre mars et juillet deux mille vingt et l' état a injecté déjà plus de cent milliards tous les jours que Dieu le président de la République avec son ministre de la santé ils font des efforts pour fexe ba nga xam ne lii plateau médicalu Sénégal bi ñu ñu ñu relever ko. Mm-hmm. et euh, aujourd'hui euh, bu ñu gisee li nga xamante ni moom mooy euh, début bi. gis nañ ni euh, classe politique bi booloo woon euh, def benn bloc quand même euh, xool naka la ñuy xeexee mbas bi ñu xam ni mbas mi moo fi nekk moom la ñu xee gis nañ li nga xamante ni ñoom ñoo demoon wuy ji woote président Macky Sall. Mm-hmm. est-ce que début bi ni nga gisee woon booloo boobu jamono ji pour yow c'est toujours le cas et bu si ce n'est pas le cas ana lan moo waral loolu. bon malheureusement booloo bi amoon comme je dis moi je trouve que c'est toujours le cas parce que dans sa globalité tous les acteurs politiques yi nga xam ne ñoom ñoo wuy ji woon le président de la République ak les acteurs culturels et autres ak toutes les personnalités du pays ñoom ñëpp ñu ngi continuer di jàpp fa ñu jàppoon je vous rappelle que aujourd'hui que muy xalif général des Mourides ak xalif général des Tidianes ak tous les xalif généraux aujourd'hui fa ñu jàppoon ci liggéey bi pour xeex mbas bi jógewuñu fa acteurs politiques yi bu weesoo benn bërëb bi gala ñaar mais ñëpp doo leen dégg ñuy attaqué li nga xam ne moom mooy régime bi par rapport ak gestion parce que comme on dit. c'est le monde c'est wuñ leen dañ leen woowoon juste pour la forme mais euh, seen ay euh, proposition et tout déglu wuñ ko tout récemment gis nañ euh, Sonko ŋàññi bu mu doon ŋàññi ki nga xamante gestion bi nga xamante ni moom moo am ci biir Covid bi lors de sa dernière sortie est-ce que loolu aussi du firndeel kàddu yi nga xamante ni dañ naan woote bi c'était juste pour la forme mais boo xamante ni en cas dans leur majorité jël nañ ko euh, en compte. moi je suis pas d'accord ak ak ak ce point de vue parce que déjà woote bi du woon sax obligation parce que président de la république la ñu fal pour mu gérer li nga xam ne moom mooy réew mi moom moo jël choix bi mbas bi dugg see mu woo acteurs yépp ñi nga xam ne ñoom ñoo seq réew mi waxtaan ak ñoom ku ne mu laaj la sa xalaat maintenant pour en venir au fait comme loolu nga bëgg moom mooy Ousmane Sonko ak sortie yi mu def au vitriol moi je vous rappelle que il fait partie des premiers hommes politiques yi nga xam ne ñoom ñoo njëkk grillé li nga xam ne moom mooy couvre-feu bi moom moo génn këram dem ay salon de massage li ko fa dal dal ko fa ma fàttali ne même état d'urgence beeg couvre-feu beeg tout ça mais il avait dit ci ay pseudo complot la bokkoon te xam nga loolu gis nga gravité wu. yenn yenn yenn parole yooyu nu mu fa di dem di di faju ji am urgence génn comme moom nu mu ko expliqué. non faju ji xam nga yow faju ji nga wax. mais xam nga ne salon de massage kenn du fa fajoo c'est une histoire boo xam ne véritablement bëgguma fa dellu parce que aujourd'hui comme on dit c'est pas ça qui est est beaucoup plus important que ay affaire de salon de massage ak yooyu mais li ñu ko mën a wax rek moom mooy aujourd'hui véritablement nam ay ñi nga xam ne ñoom ñooy les acteurs de la santé parce que ñoom ñoom ñoo xam bi ñu bàyyi leen ñu def seeni liggéey parce que nag bi mbas bi commencé ba léegi ku dee sa bàmmeel benn masque mosuñ ko gis mu woote ko joxe ko Sénégal bu amee wax ma ko yaa ngi fi maa ngi fi ñeneen ñu ngi fi ku mus a gis ku mus a gis Ousmane Sonko wala ñenn membre opposition bi ngay dégg tey ñuy xalab nguur gi ñu yëkkati benn doomu masque wala benn doomu gel alcogel jox ko Sénégalais gisuma ko ku ko gis mun na ma ko wax donc bu bu lu bu lu mel noonu amee bu lu mel noonu amee da ngay may véritablement non parce que li ñuy wax ni c'est important gis nga affaire mbas c'est tellement c'est c'est tellement grave c'est telement tellement grave man gisuma ko moom laa wax parce que moom moo génn xalab ak moroomam ñi ci génn xalab ku ci gis benn Ousmane Sonko je le cite nommément je dis kan moo ko mus a gis mu jël benn doomu masque wala benn doomu gel alcogel jox ko benn sénégalais na ñëw wax ma koy naakaa sortir les bandes vidéo ce que je dis extrêmement sérieux moom mooy fi ñu toll feebar bi mbas mi waruñu ko politiquer parce que moom ci biir ay waxam moom dafa mel ni moom mooy variant bi parce que au début il disait que vaccin yi tubaab yi dañ ko fi indi pour rey ñu pour def ceci pour def cela ba barki dem bu mujjee génn dégg nañ comme je dis il mis de l'eau dans son vin muy wax que ne vaccin yi moom mosu ko xalab changé wu mais les vidéos la là maintenant boo bañee loolu yëpp dal la da ngay bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy les acteurs ñoom ñooy les concernés parce que ñoom ñoo ko xam moom mooy les cadres yi nga xam ne vaccination mooy seen spécialité les médecins les acteurs de santé ñu def liggéey bi nga xam ne moom lañ doon def ñu ñu nekk ci ginnaaw di pousse parce que même bu dee benn nit ñun ñuy déglu ñuy sensibiliser nit ñi ñu dem ñaxu ji vacciné wu parce que véritablement man jàpp naa ne foofu lañ ñuy xaar te loolu mooy enjeu de l'heure yi. et maintenant euh, lan nga yaakaar ni moom moo war a nekk euh, taxawaayu ki nga xamante ni moom mooy euh, jëwriñ bi nga xam ne dénk nañ ko wàllum. wér-gu-yaram suite à cette histoire de euh, ces histoires de de vente supposées en tout cas euh, de matériaux matériels médicaux ci CT yooyu et est-ce que déjà vous yow yaakaar ngeen ni euh, loolu war na mën a nekk. man man man man sérieusement man man j'aime pas faire de la météo moi j'aime pas épiloguer li wóor ba wóor moom mooy le docteur Niang il est sorti pour proférer des accusations le ministre de la santé a la responsabilité lu bari ñoo xam ne nit ñi duñ ko fi def dalay porter plainte maintenant comme c'est un dossier pendant au niveau de la justice nañ bàyyi yoon mu def liggéeyam leeral ñu bu dee li docteur ñaa moom moo li mu am moom moo wax mais le président de la république comme le ministre de la santé ils vont être obligés de prendre des sanctions bu dee li mu wax amul itam yoon dal ci kawam parce que nag munatuñu permettre aussi ci enjeu yu toll nii xew ñuy bàyyi benn nit muy génn di wax loo xam ne véritablement pour saborder liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la acteur yi def loolu duñ ko nangu comme daal dossier bi ci loxo yoon la ne nañu may yoon mu def liggéeyam après ñu xam lan lay léegi mas mi lan la mën a jàngal ban jàngat lañ ci mën a def Euh, je dire dans sa globalité dugg bi mu dugg ci biir Sénégal ak yenn euh, ci ay euh, coono yi nga xamante ne teg na ko parce que certes secteur santé la gën a touché mais yeneen secteurs yi aussi am nañ ci wàll gis nañ ñi nga xamante ni moom mooy économie bi jamono ji mbir mi dafa metti comme lu ko tribune titré tey ci quotidien bi crise de crise bi fépp la ci biir Sénégal ci côté économie bi gis nañ ko ci wàllum li nga xamante ni moom moo di santé bi comme ni ma ko waxee tout à bëri na secteur yoo xamante ni ñu ngi subir coup bas bi aujourd'hui est-ce que ce ne pas euh, l'occasion de se euh, des questions sur investissement yi nga doon yi nga xamante ni nguur gi mi ngi ko doon def ci yenn euh, secteur wala boog ay infrastructures yoo xamante ni aujourd'hui gisuñu njëriñ bi il faut le dire yenn infrastructure ñi ngi en instance ci mel ni terre bi gisuñu aujourd'hui lan la apporter de gros investissements est-ce que yooyu mu ko woon injecter Euh, depuis ci li nga xam ni moom mooy li gën a soxal population bi ci wàllum priorité. mais xam nga li ngay wax noonu muy aussi affaire transport terrestre ak transport ferroviaire lu soxal askan bi la lu leen amal njëriñ la maintenant tout ce que je peux dire par rapport à saa moom mooy boo xoolee évolution budget ministère de la santé. comme muy ministère de l' éducation nationale moom mooy secteur de base yi nga xam ne moom mooy sous-tendre économie pays je te donne un exemple ministère de la santé en 2012 son budget c'était de milliards aujourd'hui on est arrivé à plus de 250 milliards muy au moins le double de ce qui a été fait depuis les indépendances à aujourd'hui donc mënoo wax ne aujourd'hui lu mel ni secteur de la santé gouvernement bu Sénégal bu président de la République defu ko priorité maintenant ñun dañu di dëkk yoo xam ne malheureusement doole gi bariwul te priorité yi fépp la ne donc c'est toujours des jeux à faire mais jàngat bi ñu am aujourd'hui ci ci mbas mi moom mooy déjà dans notre comportement de tous les jours il y a beaucoup de choses à changer moi je te donne un exemple simple je disais à proche que ne même bu mbas bi jeexee man je crois que je vais adopter les masques di continuer di ko def parce que même pour la pollution dalay aar te ci lu bari tey aujourd'hui mbas mi jàngal nañu ne il y a des choses yoo xam ne war nañ ko changer ci que muy ci suñu doxalin que moom mooy ci suñu priorité yi nga xam ne moom lañ am de tous les jours que muy ci état bi que muy ci même personne citoyen citoyen yi généralement mais li li ñu jot a def euh, tey ban rendement la am ci Covid bi investissement yi ñu def euh, ces grands investissements là nga xam ne jot nañ ko def ba noppi te ñi ngi ci euh, tout le temps bon di joxe ay date que ni tey lay effectif et tey ci Covid bi da nga lii la ñu fi indi loo xamante ni ah mën na participer aujourd'hui euh, ci euh, li nga xam ni moom mooy résil plan de résilience. mais c'est ça que je te dis nee naa bi ñu tàmbalee en mars 2020 bi Covid bi du dugg Sénégal on n'avait que 12 lits de réanimation aujourd'hui on est à plus de 450 dans le pays globalement boole ci li nga xam ne moom mooy lits yi nekk ci privé yi. ma yokk ci loolu aujourd'hui le président de la République a pris une mesure importante moom mooy li nga xam ne moom mooy le de la guerre. boo feebaree Covid 19 mooy oxygène mu fexe ba rendre ko gratuit dans les établissements privés parce que dans le public ça l'était déjà aujourd'hui dans le privé aussi c'est gratuit mais loolu c'est des investissements à ne pas ignorer ay décisions yu mag yu majeur yoo xam ne la njiitu réew bi da koy jël pour soulager askan bi mm, autour de cette pandémie maa ngi ñëw parce que aussi pandémie bi bu mu ñëwee il a fallu prendre ce problème là à bras le corps je parle pas de tout ce qu'on a fait au niveau social parce que aussi ménage yu bëri jàppale leen leen mais je parle surtout au niveau de la santé parce loolu moom moo ñu soxal ñu toll nii je consenti beaucoup d'efforts bul fàtte ne ci période Covid bi la ñu réalisé mooy euh, le le service des maladies infectieuses bi nga xam ne moom moo gën a mag au niveau de l'Afrique de l'Ouest bi docteur di dirigé ci ci courant pandémie bi lañ ko def je di on a construit énormément de CTE aujourd'hui on est à plus de 42 CTE au niveau de du, du Sénégal muy ay investissement yu bari yoo xam ne nguur gi def na ko au début aussi je te dis on parlait de respirateurs nguur gi aujourd'hui dem nañ ba toll foo xam ne au niveau du ministère de la santé on a plus de 170 respirateurs am cinq yoo xam ne mu ngi ci stock yi IRM yi les imageries médicales dalal jàmm benn moo fa amoon aujourd'hui bi Covid bi duggee jëndaat na ñaar yu bees muy trois il y a de choses yoo xam ne beaucoup d'investissements yoo xam ne véritablement nguur gi def na ko pour soulager population yi ci li nga xam ne moom mooy pandémie Covid 19 bi boo xoolee résultat yi ñu am ba ñuy cité ci. àdduna bi comme parmi les pays nga xam ne dañoo gën a baax gestion Covid 19 bi aussi mais loolu dañ ko liggéey non dañu dañu dañuy cité ba léegi kenn mënuñu ci génnee dafa di aujourd'hui avec ces variants taux de contagion bi dafa dafa dafa élevé parce que on te dit que virus bu bees bi sa quinze fois plus contagieux que beneen bi man ak yow bu ñu toogee un tour d'un bool boo lekkee ma lekk ci nga wàll ma te avec premier virus bi fi nekkoon peut-être mënoon naa ci mucc donc aujourd'hui loolu moom moo tax virus bi jël propa propa kii bu proportion yi mu jël mais ñëpp xam nañ ni nguur gi liggéey bu rafet ba mu daan def moom la def moo tax aujourd'hui malheureusement décès yi mu ngi am mais bu ñu fàtte ne aussi tous les jours mu am ay sénégalais yu wër ci Covid 19 bi c'est important aussi à signaler. Mm-hmm. balaa sax ñu génn ci ci ci wàllu woowu. yow jot jot nga ko dund donc euh, nekkoon koo xamante ni mbir mi atteindre woon la atteindre woon na la et tout euh, naka nga ko dundee woon et surtout pour ñi nga xamante ni peut-être ba tey reste un peu dubitatif par par rapport ak existence virus bi et tout lan nga leen di wax. xam nga man selon selon yow voilà man man j'ai am naa expérience propre parce que moi j'ai été contaminé contaminé li nga xam ne mooy sama soxna ak sama sama waa kër mais on l'a vu sereinement. parce que quand on parti déjà dans les instituts de santé on a très bien été accueillis ñu defal ñu suñuy test wooñu nañu da ngeen a positif bi ñu positiver aussi ils nous ont donné le traitement nécessaire ils nous ont demandé de rester à la maison confiné di jël suñuy médicament yàlla muccal nañu tey ba ma mun ci wér ba dellu ci samay activité di wax juste sénégalais que ne feebar bi man dama man man man dama vacciné wu man dama vacciné wu depuis première dose mais teewul jàpp naa feebar bi mais aujourd'hui peut-être que vaccin boobu moo ma aar ba ma mun a maîtriser feebar bi ba mun ma yegg cas grave alhamdulilah moo tax may ñaax sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne ñëpp ñu dem vacciné wu parce que vaccin yi moom mooy seul élément bi nga xam ne aujourd'hui moom moo mun a permettre nit ñi ñu mucc ci feebar bi. Mm. te ñi nga xamante ni ba tey ñi ngi wax ne. Euh, feebar bi xëy na amul wala niñ ci niñ koy li euh, ñuy waxee situation bi demeewul noonu yow bi nga bi nga dundee mbir mi euh, naka nga ko dundee déjà est-ce que c'était pas trop li nga xamante eggoo ci benn stade boo xamante ni sonnoon nga trop wala c'était juste benn loo xamante ni peut-être quand même yomboon na si yow nga surmonter ko. non non yomboon na yomboon na ma surmonter ko pour deux raisons la première est mooy moi j'ai été vacciné et comme on dit quand tu ça n'enlève pas le fait que tu peux être contaminé wala que mun nga propager virus bi mais dalay lay permettre ba doo yegg yenn cas grave yi alhamdulilah quand j'ai le virus je pris mon traitement et je sais intimement dans mon fort intérieur que le vaccin m'a permis de pas arriver à certains stades yu yu grave ci ci feebar bi maintenant ñi nga xam ne ñoom ñoo gëmul mbir mi xam nga loolu moom malheureusement dafa jafee dindi parce que yàlla suñ borom sax am nañu ko gëmul te pourtant existé na foofu yéen médias yi rek la ñuy ñaaxaat ci ngeen continuer immersion yi ngeen di def j'ai suivi une de vos bu am solo bi ngeen xam ne def ngeen ko ci hôpitaux yi yooyu leen leen di ñaan ngeen dolli ko nit ñi xam ne véritablement feebar bi lu am la parce que malheureusement nit ñi dafa am ñoo xam ne nit ñi yemuñu niveau de compréhension yi yemuñu am na ñoo xam ne même bu ñu gisul boo leen waxee mu dal seen xel am na ñoo xam ne ils ont besoin de voir par contre d'autres ont besoin de le vivre personnellement pour mun ko gëm donc foofu dañuy ñaax rek nit ñi mooy sensibilisation bi parce que loolu moom moo am solo que muy les personalité que muy les acteurs politique que muy les membres de la société civile que muy yéen médias yi ngeen continuer liggéey bu rafet bi nga xam ne moom ngeen doon def pour conscientiser nit ñi et puis sensibiliser leen ci ñu gën a dem continuer continuer ñaxu ji parce que loolu rek mooy solution situation bi bu continuer euh, ñu ko mais bu continuer war nañ mën a wax ay waxu élection euh, locale bon xam nga nag moom balaa nga ne naam ne parce que man je suis quelqu'un je suis politique man dans ma base naturelle dama fay xeex mais bi mbas bi jëlee regin bi mu jël ba léegi pour ku pour wax la dëgg mais wàccatuma ci base bi dematuma fenn damay liggéey wàcc dem suma kër toog parce que damaa jàpp ne balaa ngay wax ay politique ak ay élection maa nga am wér ba mun a fekkee mooy comme li président doon wax ne tabaski neex na wala liggéey neex na am xaalis neex na mais nga dund si ba fekk ko am na njëriñ donc comme on dit li ñu mën rek moom mooy ñaan mbas mi sénégalais yi dem ñàkku ji ñu teel a atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective comme ça buñ ci yeggee bu élection waree am véritablement mu am bu dee élection aussi mënta am ñu puusandi ba beneen yoon parce que comme on dit élection c'est pas une une fin en soi. surtout que euh, en tout cas. Euh, am na lu muy àndal muy ay campagne ak euh, mobilisation yu demee noonu. Mm-hmm. te genre xeet yu mel noonu moo tax troisième vague bu mu ñëwee ñu daal di koy jiiñ Euh, seen njiit di euh, njiitum réew mi que ni moom moo nekk principal responsable bu bu variant bi dugg Sénégal. bon xam nga loolu moom. ñi nga xam ne ñoom mobilisation bi gis nañu ko si bi te xeet yooyu la quand même la ñuy sédd la ñuy gis souvent ci ci ci campagne ci ci élection yi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal. en tout cas ce que en des termes clairs moom mooy les acteurs de santé ñi nga xam ne ñoom la seen xel màccu ci wàll bi waxuma journaliste waxuma politicien waxuma mbëru làmb waxuma footballeur ñi nga xam ne seen xel moo màccu ci wàll bi ils ont dit que aujourd'hui génn président de la république ak tournée économique en aucune raison joué na ci augmentation wu cas yi parce que boo xoolee globalement ci statistiques yi ñu am gox gox goxaan yi mu demoon yépp foofu feebar ba ñu ngi ko fay arriver maîtriser donc pour man du loolu moom mooy. li waral Ourossogui gis nañ explosion euh, explosion loolu si loolu peut-être que c'est bien après mais comme je dis li may wax y a la semaine dernière le professeur Seydi muy un éminent professeur nga xam na ñëpp xam nañ ko xam-xamam màccu ci wàll bi lim ci wax c'est clair moom mooy que le président de la République kenn mënul wax ne ay tournée économique am moom moo tax tey virus bi jël proportion bi mu jël au niveau de du Sénégal maintenant comme tu dis fii ak locale yi li nga xam ne moom mooy mobilisation di di meeting ak yooyu peut-être que bu situation bi continuer nii dina jafe dina jafe mu am maintenant prions Dieu que balaa ñuy yegg foofu ni nga xam ne ñoom la acteurs yi defoon ak nguur gi ba gagné virus bi une première ak une deuxième fois ñu gagné waat ko ba ñu mën a dem ci joute électorale yi sereinement. Mm-hmm. Euh, foofu sax la ñuy jeexalee mooy li nga xam ne mooy élection euh, locale yi euh, naka nga gisee li nga xamante ni moom mooy candidature yi nga xam ni ñu ngi koy déglu saa yi la et gis nañ ni njiitum réew moom waxagul kenn na ko représenté fenn mais ñi ngi gis quand même ku ci nekk yaa ngi gaaw a précipité un peu anticipé sur sa décision. Euh, pour euh, daal di wax ni man dama bëgg représenter sama gox si je prends euh, l'exemple de Saint-Louis par exemple bëri na fa ñu fa nekk ñoo xam ne ñoo bokk parti mais ku ci nekk yaa ngi fa sa sa bopp di ne voilà man maay représenter wu en tant que candidat bu bu gox boobu. bon ça aussi ça montre une vitalité de notre démocratie. moom mooy aujourd'hui nga mën a am ay ambition pour sa localité wala ay ambition personnelle pour poste bu munti doon nga am sañ-sañu yëkkati kàddu ne man bëgg naa bëgg naa mbir mi maintenant ce qui est clair dans ce moom mooy ñun on est des jeunes respectueux de ce que chef de parti ou le chef de notre coalition li mu wax le président de la république a été clair bu le moment wu def choix jotee moom li mu ko daan defee ba yàlla dañu may ndam ci élection yi ñu sumb depuis 2012 à nos jours dina ko def nous ah, on s'adosse à ça on préfère faire notre travail à la base lui il la personne la mieux informée dans ce pays xam na li xew ci parti bi ak grande majorité présidentielle li véritablement li nga xam ne moom moo nekk intérêt coalition bi yëpp pour mu gagner dina ko def te choix yi nga xam ne moom moo adéquat pour pour askan bi ak pour coalition bi jël ndam ci mairie yëpp yi nga xam ne moom moom moo fi ne comme niñ ko daan defee buñ ci tollee dina dina ko def mm. merci beaucoup euh, Mouhamed euh, Rassoul Diouf donc moom Euh, membre fondateur la bu plateforme digitale bu bees boobu ñuy duppee euh, H24 Macky moom lañ fi dalaloon ci deuxième partie bi waxtu bi jot na ñu bàyyi la nga tàggoo ak téléspectateur mais merci Astou Dione pour liggéey bu rafet bi nga xam ne moom ngay liggéey mais fàttali ne sama proportionnaire nga bokkoon nañ bokkoon nañ classe mm-hmm. di la féliciter véritablement ci liggéey bi ngay def yow ak équipe bi nga xam ne moom nga ko seqal yépp di profité ci occasion bi aussi di ñaax nañ ñi ci solo masque yi ci dandante bi ci moytu regroupement yi te ñu dem ñàqu ji parce que moom mooy seul élément bi nga xam ne moom moo mën a permettre aujourd'hui ñu ñu gagné li nga xam ne moom mooy virus bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp merci beaucoup. merci yow it ñu lay sant bu baax ci sa euh, teewaay di leen remercier yéen téléspectateurs yu 2STV auditeurs yu 88.4 Origine FM et les internautes qui nous euh, qui nous suivent donc euh, sur les réseaux sociaux remercier équipe technique bi àndaloon ak ñun tout au long la semaine merci beaucoup di leen jox rendez-vous en début de semaine incha allah pour beneen numéro bu Matin Bonheur passez une excellente journée et un excellent week-end également.